coronavirus bi fu mu sonn nañu ndax ñun ñii ay jaboot lañu sa suñ si kenn ñoo jàppale suñu borom kër ak suñu njaboot marché la ñuy jaay dañuy jaay jën waaye fi ne ñetti fan la ñu may ci semaine bi moom la jaay bu ñu mënoon dimbali wàññi ñu jour yi samedi ak dimanche ñu ko ñu di ko jaay dinañu dina baax te ñu ne ñuy jaay ñu mën a jël suñuy précaution xam ni ñuy def xam ni ñuy jaay ne xam ni ci xaalis la ñuy yëngu ñu sol suñuy gants takk suñuy masque jéem a protéger suñu bopp protéger suñu njaboot corona bi daal sonal nañ yàlla na fi jóge waaw loolu daal la amoon ci li may wax waaw ñu ngi respecté matuwaay yi ndax ñun dañuy zone eau de javel lañ yor yor suñuy gants takk ci marché la ñuy nekk mais ñun dañuy jël suñuy précaution yëpp ah. waaw sunu biir kër ah kuy def kuy def ci marché kay xam nga doo bàyyi sa njaboot ak sa biir kër feebar bi moom ni mu mel si ñun lébu yi moom metti si ñun torop parce que gàllankoor nañu suñu liggéey ba niñ warono waroon a liggéey mënatuñu ko parce que da daan chaque jour mais légui fiñ ñu toll mënatuñu ko parce que état bi lépp tegu na suñu kaw mais nak feebar la bo xamantene yalla mo def mu dal ci ñepp ci monde bi ñu kay sante yalla wu baax ñaan yàlla daal yàlla musal ñu ci sutura suturaal ñu si gis nga liggéey bi lu melni gal yépp dañ daan dem tëmb heure mais kenn mënatul tëmbatul heure kenn mënatul teer heure metti na trop ci mool yi nag trop bu baax parce que ñu ngi dem ku si nekk yaa ngi yaa ngi dawloo surtout loo sa kër mais liñ doon am ñu ñëpp fi ñu toll wàññeeku si loolu bari ci sa gaal yi la nekk yéen taxaw yenn gaal dematu si géej parce que métti na trop amaguñu même moyen. waaw coronavirus bi de yàlla moom mën naa ne wax dëgg yàlla njaay moom guddee ñu toll nii yàlla dëkk bi métti na lool waaw. li nga daan xëy di am daal mën naa la xaaj bi yàlla na lool hmm? moom li daan xëy di am moom boo bëggee dëgg dëgg moom xaaj bi mënatul ko am wax dëgg yàlla metti na lool dëkk bi moom di yàlla moom waxul waxul dëgg moom boo bëggee dëgg dëgg dëgg bi moom waxul dëgg fi ne nii. waaw asalaamaaleykum wa comme ni ko laajee rek ñun moom ñu ngi koy dund comme yeneen gars yi ni koy dund rek di jël suñuy matukaay bu baax euh, di raxasu ak saabu comme niñ ko waxee di laal tamit gel ak euh, comme ni ñu waxee restez chez ñu ngi toog tamit si kër yi bu ñu demee géej bu ñu ñëwee rek dañuy dellu toogaat si kër yi. ñun yaakaar naa ne matuwaay yi ñu yor ñun waa géej ba ko ñëpp a yoroon mu neex ñun ba ñu xëyee ñu ngi si masque yi bu guddi jotee ñu ngi si masque yi ba ñoo génn fa ñu mën a dem daal ñu ngi si masque yi pour aar suñu boppa ndax ndax fi mu nekk nii feebar bi du gën a du gën a yoof ba laal na daal laal na côté yëpp léegi nag ñuy léegi nag ñuy ñaan jigéen ñi nañu def ñi ñun ñun fii ñu toog sax yaa ngi ñu fi fekk ñu ngi yor masque yi nii te wax rek moo tax ma dindi ko léegi léegi. léegi nag ñuy ñaan jigéen ñi góor ñi ñëpp nañu def ñu ñun bañ defee ne ñun feebar bi dina fi joge waaw wala ba fa dëgg yàlla xen ba ñun sonn nañu wante nag médecin yi ñooñu fi mu nekk ñooñu gën a sonn ndax ñoom nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg Abdoulaye Diouf Sarr nelawatul guddi nelawatul bëccëg fu ñu ko oowee mu ngi mu mu ngi dem dañu koy ñaanal nag moom daal nii ñu taxawoo yàlla nañu yàlla taxawoo noonu waaw wasalaam ñun ñëpp ñu fekke ka daal ab Ablaye daal gàcce ngaalaama ah mool yi day ñun déggaguñu si dara xanaa ñun di ñu indil ay confirmation yoo xamante ne dañuy dañuy tëdd huit heures yeewu six heures du matin bu ñuy dem géej sax dañuy laax pour mën a dem géej te liggéey doxul. waaw man ay moyens laay jaay mais di yàlla client mooy loolu nit ñi foo dugg jaay sax danaa leen isaan yi ñun leexal leen tal te li ñuy jënd yi luñ leexal leen tal alxuraan foo di dugg jaay loolu la lay wax mooy loolu su ko daan dem di jënde bagage comme tap mi ngi noonu presque mën naa la semaine bi ñaari ñaari fan lañ siy jaay ndax tey boo jënde bagage ba ni ci pourcent bagage bi moo yor ni barki démb loon ba tey ah mënatuñu liggéey ndax couvre-feu bi parce que ñun dañuy finaani géej parce que bu ñuy finaani léegi dañuy tëmb dañuy départ 4 dañuy tëmb mën a teew suba ay 7 yi du matin état bi mu waxul si ñun dara moom wàññu si daal dara ndax ñun ay jën lañoo jaay waaw ndax ñun ay jën lañoo jaay waaw aha kañ aha kañ aha kañ wàññi na ñun dañu daan yor la ma téeméeri jën ñu toog indi ko jaay wante fi mu nekk ñeent fukki jën yaa yor sax doo ko a jaay ndax fi mu nekk ba la ñiit jubee daal di la daw fi mu nekk baa saxatee mo mu daal di en arrière lépp fi mu nekk gisatuñu dara suñuy jën day nëbb ba dañu koy dem tuuri duñu gis kenn ki mais chaque jour jaay mais mais dem jënd bagage boo xam ne mooy loolu ndax comme que magasin yi nga xam ne ñoo ngi jënd ñoom xuma lëndi la leen may xuma lan ñaari fan lay tij ci semaine ah, boo bagage boo xam ne xam nga mooy loolu yow da nga koy yor lu ma une semaine yoo xam nga ko a jaay da ko a ma ne nguur gi moo ko digle moom nan takk rek c'est moo gën daal comprendre ah ñu ngi koy respecté bu baax ñu ngi takki masque ñu ngi raxasu ñu ngi moytu li ñu tere yëpp ñaan yàlla daal yàlla surtout euh, parce que ñun waa Yoff moom ñu ngi jàppale suñu maire Abdoulaye Diouf Sarr moom dëgg na yàlla. waaw liggéey bi nag doxul comme ni mu daa doxee parce que boo xoolee ci comme si poison bi nga xam ne moom la ñuy uti euh, par rapport ak ni mu meloon quoi léegi essence bi dafa wàññeeku waaw essence bi moom si côté mareyeur yi euh, comme niñ leen ko daa jaayee ak léegi ça fait deux quoi. waaw saa nag ñu ñëw ba si géej bi. saa ñu ñëw si géej bi xool gars yi ñu ngi takk masque yi wala takkuñu masque ku takkul masque yi ñu ne la demal nga takk masque quoi mais ñaari fan yi daal gisuma leen dinañ dem guddi gi dinañ dem bëccëg gi waaw mais bëccëg gee guddi gi yëpp xam nga wërsëg moom du naaj wërsëg waaw yàlla da leen di wërsëgale guddi gi ñii ñu koy jël tamit bu baax si matukaay gi si gaal gi yëpp waaw ñu bi comme na woon fa woon rek waaw parce que instant bi wax dëgg yàlla ñu ngi def li ñu man waaw di remercier bu baax suñu tonton euh, ministre Abdoulaye Diouf Sarr di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal ka ndam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que ndamam mooy suñu ndam ndamam tamit mooy ndamal président bi quoi. ah état bi kay mu jàppale ñu ci jours yi mu jël ci marché bi lañuy dimbali bàyyi samedi ak bi ñetti fan la toog duñ ko jaay. 3 jours la jaay ci semaine bi wa lool dafa metti ci njabot nga wara xey dimbali say njabot dafa metti torop bu mané dimbali moli mom ñu man sey gis seen bopp bu baax ñun moli mom gis suñu suñuy bopp ne yalla mom gis suñu bopp ñun ñun dañuy dañuy bay dunda buñ démé geej buñ amé dundal suñu njabot buñ demul geej tok xaar yalla lool daal lañuy dundé dunde moom. waaw ge Aïga dañu war a bu baax ndax bu dul dara xam nga comme ñun comme que ñun ay étranger lañ dañu ñëw fi pour liggéey comprendre Ah, bàyyi suñuy njaboot fële waaw su lii suñu liggéey moo daan dox ñi mën di leen jàppale te léegi instant yi liggéey bi demeetul noonu ah kon wax dëgg yàlla war na man a gëstu doomu aadama yi bu baax ñu jàppale ñu bu baax instant yi ñëpp a sonn barke alxuraan dëkk bi instant yi ñëpp a sonn état bi daal lii ñu war a dimbalee daal ba ñu mënee dimbali daal pour la ñu mën a téye ba ñu mën a téye daal jox ko si ñuy njaboot moo gën parce que fi mu nekk nii itam liggéey ñu daal liggéeyuñu ñun kenn liggéeyu si dañoo toog si géej rek liggéey lii ñu tàmm géej moo tax wante ñun daal du kenn kese liggéey boo fi dëgg yàlla yéen tamit état bi daal nañu jàppale jàppale baana baana yi jàppale mool yi ndax ñun tamit sonn nañu moom la ñu yaakaar waaw dematuñu fenn daal dematuñu fenn.